Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz Aziz c'est ça. lay xaar bal bi monsieur Baro bi lay xaar monsieur Baro. ah mais y a certains gardiens da ngay wax ñu ne ñuy tàkk nga door ñu ne nii mu rëcc. Aliou Mbaye bàyyi l'extérieur bàyyi l'extérieur coup de pied bi la ci dal.

perempuan sama perempuan Go. stop, stop, stop. Sila lah, lead, lead. tunggu. Ada siapa yang ada wah? teew yëpp maa ngi remercier Laye pour invitation bi euh, man su fi teewee dama fi teew en tant que représentant Thiaré parce que ñun mooy sunu kilifa ñun académie bi moom mooy sunu kilifa duñu duñu def la nga xamante ni moom yëwu ko si tànkam la ñuy wéy actuellement nag newu fi daa tukki mais il devait être là mënoon na mënoon na fi nekk mais yàlla def na néew fi daa duñ ay maître ay élèves lañu ba tey dañ nekk di jàng moom moom ñu nekk di ñu former mais jamono ñu toll nii am nañ yaakaar ni ku teg ku samp centre de ñu mën nañ samp suñu bos mais tollooguñ fa ba tey tollooguñu foofu dañ toll si jàng élève la rek ak maître ñu dañuy mooy suñu maître ñu nooy élève bi bis dina jot moom dinañuy yeewi dañu demeen taxaw fii teg leen fii teg leen fi dans ce maa ngi sant euh, laay bu baax a baax euh, organiser journée mel ni yombul. boo demee ba luy esat foo taxulaa ñëw damay gën a waxaat tamit ci heure sénégalais respecté wul heure boo nee 7 heures lu mu xat xat xat 8 heures 8 heures la ñuy ñëw tey ñëpp dañoo tardé loolu rek problème la mais ngir yàlla yonante bi gardien na but bu leen yaakaar ni caaxaan la parce que benn yow kese nga taxaw ci ci camp yow kese 7 mètre 32. nga ne lan ngay sauver quand yi ngay sauver kon bal bi sa lan la sa xarit la wala du sa xarit kon ngir yàlla lépp loo leen yi def concentration na gën a am. en tant que jigéen rek damay wax ñu gën a am solidarité gën a gëm lu ñuy def en plus nekkul ni sport bi kese la ñuy def déedéet dañuy def sport dañuy dem liggéey dañuy business rien que pour teral suñuy waajur man nekkul ni football rek laay def en plus nekkul ni tamit damay football pour nekk góor jamais de la vie damay football un bon jour damay ñaan yàlla. am jëkkër dem sëy ji alaykum ma ngi nuyu ñëpp di gërëm sama invité yi muy wa Thomas Nkunu ñu ngi joggé ba Mbour man ak ñom ay nawlé lañ ñooy liggéeyandoo ensemble je les connais ça fait longtemps vraiment ñu nekk nit ñu baax surtout côté Thiaré aw fayam à chaque moment ñu ngi déggante ci côté liggéey bi ak ci ci waxtaan yeeg yépp ci thème bu ñu mëna def lépp lu may def dama ci waxtaan ak moom

aussi may nuyu sama wa centre di représenter aussi tamit di présenter aussi centre muy lan l' académie gardien de but parce que li tax ñu ubbi ko dañu xol né tay formation bi dafa xaw a manqué formation bi lutax mu manqué moy da ngay gis ñoo xam dañu nekkoon ay ancien goal ñew né man damay nekk formateur te formateur bala nga koy nekk il faut la ñu former la ba paré pour nga mëna former des gosses tey war nga mën a jàngal góol bi nan la ñuy plongé war nga mën a jàngal góol bi nan la ñuy déplacé woo déplacement latéral déplacement euh, sachet xam nga pas croisé yooyu yëpp góor bi war na ko xam mais su fekkente ne da nga ñëw jàpp góor bi daanuloo ko ba mu sonn nga bàyyi ko mu dem amul sens ñun suñu bébét mooy lan former des jeunes yoo xam ne ne ëllëg fu ñu dem di góolu dinañ leen naw parce que tey baa mu ngi si euh, am na ñu mu jot a wax ma si ñoom loo xamante ne si vraiment dina tax ñun ñu gën a góorgóorlu aussi Yaraax académie mu ngi nekk Yaraax table ferraille Euh, siège mu ngi nekk Yarax Table Ferraille villa numéro 46 D ñu am suñu bureau lépp ku mel ni Layña ku ci mel ni euh, Ousin Thioy ku ci mel ni Badou Gaye ku ci mel ni ñoom Abdou Karim ñoo ñëpp ñuy liggéey ak ñoom suñu mébét nag lii taxul ñuy jóg li ñu tax a jóg li ci kanam la lu olof Njaay naan li ci kanam raw li kon dañu bëgg ñuy lancer appel euh, ministre de sports di lancer appel tamit maître Augustin Senghor muy dem reconnaître centre yi parce que boo xoolee ñun à part Yarax Euh, euh, Thomas Nkunu Kaana Fall ñoom ñoo fi nekk mais liggéey tamit dafa bokkul te wute tey boo ñëwee am na góor yoo xamante ne si am nañ ay lakin lakkin yooyu lan ngay def bu mun ko dindi il faut être fort vraiment ñu leen di remercier tamit waa Hann TV yi nga xam ne da ngeen bàyyi seen liggéey représenté aussi au niveau de Yaraax ku leen woo muy suba muy ngoon ngeen bàyyi seen lépp ñëw pour jàppale ñu vraiment amuñu seen fay les jeunes là de l' académie Yaraax gardien de ñoom tamit dama leen di encouragé di leen wax ne ñu gën a góorgóorlu xam ne affaire bi yombul lo liguey mom ngay fayeku bo jariñu may gërëm ku ci Bafal fayam mu ngi ba Jacques mau ku ci ni mu ngi ba ku on travaille ensemble ñoo dëkk souvent day sama entraînement ñu assister ma jël lepp te ko ci loxo. may gërëm ñepp nga ñu ngi surtout ma fay di wax nañu ñu former seeni dom jangal len ëlëk fuñu dem may lancer aussi appel monsieur le maire. mi nga xamante ni moom mooy doomu doomu yaraax nekk tamit euh, maire yaraax mu ñëw appui centre bi nañu appuyer dimbale ñu pour si si côté matériel ñun ñaanuñu kenn dara waxuñu kenn nañu dimbale ci dara mais li ki ñu mën a dimbali ci matériel ñun ñu liggéey jëm si kanam ñun loolu lañ soxla on est pour aider les gosses on pour le former et aussi li ci kanam daal vraiment may am contentement am mbégte surtout yéen ñi nga xamante ne da ngeen bàyyi seen yitte ma lay remercier surtout yow Pa ma mi bàyyi sa liggéey heure bi waroon la fekk nga dem awma sa fay yàlla na la yàlla fay moom mi nga xam ne moo am sa fay merci